def jàmm Pao Pao Pao mais est-ce que waal dina ñëw mais waal <laughs> am na ay parfum yu cher yu ma jënd maa ngi yow ak ànd maa taxaw ma jënd maa ngi. yow it parfum seen seen seen seen woor réussir mais mën naa fool fooy naa fool nag sama xarit yëpp ay jour lañ mën naa fekkee la mën lan ci xam bi mënu football de man lépp lu góor lu góor di fooyee mën naa comme lan comme lan lépp lu góor di fooyee comme lan di fooyee comme lan lépp di góor di fooyee mën naa pomp sax mën nga pomp <laughs> mën nga pomp pomp sax mën nga el yaa ngi ree waaw moom moom saa yi bokk nañ ko mais Alioune mais Alioune Alioune mais borom Bercy Bercy Mbour. mais mon frère borom Bercy Mbour ci loo ne. mais yaa ngi ci jàmm. waaw mais waaw mais tey ñi nan nan nga ko gisee nga euh, euh, footballeur Wally Seck yi ñëw bokk football ak ñi nga xam ne ñooy joueur Guédiawaye yi ban appréciation nga ci am. c'est Guédiawaye qui en fait c'est la banlieue qui en fait c'est Wally qui en fait c'est euh, Diarra ñun ñëpp xam nga c'est la famille comme ni ma ko waxee sànq rek am na événement ñoo am nañu événement dañu ñëw jàpp ñu xaar tam sama bopp ñoo ñëw jàpp te parce que ñun ñëpp c'est la même famille. Wally moom ku ko mën a jàppale pour lépp dox rek. waaw mën nga ko def incha allah. Ah. Ah, mais yow mi di waajal bés bi Bercy Bercy Mbour. lan lañ war a mën a xaar ci bersi Mbour bi aussi tamit. waaw ah, incha allah beaucoup de spectacle. c'est bon concert. lumière xam nga gars yi mën a a fête bu baax. ñu woo ñëpp ñëw c'est ça sera une très belle fête. di euh, clôturer période de Kankourang yi di si woo bépp sénégalais bépp Dakar waa bépp Mbour waa ñëpp leen woo incha allah rabbi le 28 au stade Caroline Faye de Mbour. mais pourquoi Mbour en ligne ku la xam-xam ne Ndakaaru nga turoo dëppoo yaroo fi màggee fi lu tax nga romb fi yëpp dem ba Mbour. parce que dama coincé ak benn date bu xaw a particulière à Mbour muy période tempérance. d' accord mu fi ko ci assisté te waaye itam même chose du coup. on se dit que ce soit une fête waa euh, ñun ñëpp ñu dem feete waale concurrent yi même tam mosu ñu am waale fekk. comme euh, ci période cancan boobu ñu ñëw bu leen Wally Seck mu nekk benn fête euh, mu gën a xaw gën a naan sax incha allah moo tax ñu bëgg mu. donc à part la soirée la journée dafa am leneen loo leen préparé yow ak Wally. waaw y' a beaucoup de surprise d'accord pour la journée. incha allah mais Alioune mais Alioune est ce que yaakaaroon na exactement comme sa premier événement la nga yaakaar euh, perte moo waral nga dem Mbour te Mbour ñëpp xam nañ ne Wally Seck mosu fa tëgg aussi tamit mu bañ a fees. waaw Wally moom bu ñu koy tëgg ragal yaakaar perte moom parce que xam nga bu ñu koy tëgg. Mhm. Wally moom boo ci tëgg boo ci dugg moom. ñu am benn dugub côté revenu dañuy ñaan yàlla su daal ñëw ci jàmm ñëpp am jàmm ñëw ko defee jàmm bu ko defee moom moom nekk quoi ñu taxaw. d' accord mu mel ne dañoo gis Alioune Seck ñun ñëpp parce que mosu ñu nga xam ne ci li nga xam ne moo di production euh, ci football gaa xamee nañ la ci ci li nga xam ne moo di wàllum entrepreneuriat bi mouton yeeg yooyu xamee nañ la ci mais production lu la ci dugg. Ah, benn benn moom rek exploité bu bees rek wala pour góor nga am yoon yu bëri. on s'est dit pourquoi pas ñu par Mbour après def yenn euh, production yu gën a mucc ayib incha allah waaw. d' accord Aïcha c' est

Sadio Dieng ah, la lii mu sóoru nii ci jigéen c'est pas évident et c'est pas donné à tout le monde. mais nekk ci ginnaawam. mais ku nekk ci ginnaaw ak yow ay wax nag. ay la. monsieur wala. sama yaay nag. monsieur Tomari jàpp ci. bien mooy lépp. mooy lépp. mais laaj ko tur bi ndax amul raxul raxul turu jëkkëram aussi. turu bi nu la yambaaseeg turu jëkkër gi de. encam la ay mbir la. non non non kaay nii kaay nii exclusivité tournel nii. tournel nii ma lire MK. waaye dina ma bàyyi. mais tournel lii. MK. MK Pla Platinum Events. c'est Events. laaj ko moom nan la sant madame lan la. Diagne. oui ma kay Diagne événement bi la Diagne événement la événement ça n'a rien à voir ak li may laaj. waaw d'accord léegi yow sa madame comment. madame point d'interrogation. jaara kan moo nekk sa ginnaaw loolu génnewu la ci li taxaw nii. man kenn nekk sama ginnaaw. wax événement mais mais Nabou ko ñi doon wax moomul événement bi tëggul événement bi. lan la ñu ma de. déggu ma liggéey xale eh. eh, wax danga ji moomoo événement bi. waaw dañ la kaa tëggloo rek. waaw. ah côté yooyu la la kon. mais man damaa gis léegi sa photo la ñuy taf léegi bàyyi nañ sa photo di ko taf ci événement bi lu tax loolu. ah loolu ay yëg-yëg la loolu moom c'est pas. mais Pascal ban ban ban engagement la jël ci yow. yii Pascal Pascal engagé Pascal daf laa compris. mais yan surprise lañ mën a xaar ci événement bi le 21 incha allah. lu bëri lu bëri. comme lan par exemple. non surprise ça se dit pas. d' accord mais mën nañu xaar spectacle quand même. oui avec les artistes et les lutteurs de Guédiawaye. ah oui tout le monde. d' accord. ah. mi ngi la il faut ñëpp am na benn journaliste bu sopp la bu jëloon interview ngay wax ci ci ray ray ray am na benn journaliste Eh. mais nga def concept non à la violence xanaa ba nga jugee ci loolu moom nga créé concept bi def non à la violence aussi. non événement bi c'est am thème. waaw on a vu euh, tey fi xew jot a xew. donc pour juste pas que bon da nga mel ni nga dëkk banlieue wala nekk banlieue sax da nga war a violent ils sont pas violents ils sont gentils mais seytaan dafa bëri doon dafa ndugul lay xam donc moo tax ñuy sant yàlla di wax ñëpp ni ngeen moytu violence. mais le parrain bi ñu ko tuddee di Ndiago Oro pourquoi Ndiago Oro. te nag te nag du Ndiago Oro kese am na leneen loo xam ne bëggoon na ko def ci événement bi loo xam ne lu garaaw la woon. comme lan mais yàlla dogalu ko. comme lan ah, comme lan waaw waaw waaw. comme lan comme lan mais pourquoi Ndiago Oro en fait. bon Ndiaga Euro il est spécial pour moi te Ndiaga Euro dafa mérite ñu sargal ko oui Ndiaga Euro dafa mérite ñu sargal ko force la lool su ma ko defee woon keneen def ko te man yëg yëg la. dafa bett ah je pense que il était en Paris dafa bett man damaa damaa njëkk a génn affiche ba pare parce que xam naa ne su ma génnoon affiche wax ko yëgal ko day daw. ma génn affiche ba pare ba affaire affaire bi daal ma génn affiche sargal ko dafa tey ma envoyé ko mu ne ma lii laa la ma ne ko li nga gis. Naturellement. Naturellement. Oui. D'accord. Il le mérite vraiment. D'accord. Mais Diaga Diaga Diaga fan la la taxaw la def ci yow ba ba la nga jël événement bi di ko aussi. bul wax lan la def ci yow lan la def ci famille Faramareen ngay wax. ne dis pas moi mais famille Faramareen plus particulièrement notre patron. ku ko defal ñu ngi ko defal ku ko jàppale ñu ngi ko jàpp ku ko bëgg ñu ngi ko bëgg. sa doom mu ngi nii sa doom. sa doom jaa ngi nii la la la nouvelle pépite. dara dara mais la lu rëy ah. dama dugg RTS indil la RTS. loolu mooy yow jaajëf. waaw mais ma ngi naan RTS ah. euh, ko toog waxtaanee ko wala c'est c'est venu naturellement. non yàlla xam na nag lépp moom la. tu vois moom moo xalaat xalaatam. ñëw andil ñu ko tu vois c'est un projet boo xamante ni togg na ko sûrement pendant des années donc euh, mu ñëw expliquer ñu ko rek euh, mu tombé nag ak ma dugg RTS donc ma dem proposé ko waa RTS et y a pas de moom ils sont parce que c'est la chaîne nationale rek wax dëgg yàlla ils sont là pour waaw c'est ça ah. waaw damay soob rek damay soob nii rek ça c'est mon petit frère bëri na animateur yoo xam ne xawoon nañ léegi moo leen suul de. moo leen ah. mën ñëpp <laughs> gën a sama animateur day ñëw ah. ah. eh, ca kaw siggi animateur day siggi njool am doole waaw waaw mais boo waxee ñu dégg na léegi animateur buy improvisé yàlla ko <laughs> ah oui ma del ah, improvisé. Ah, del improvisé. waaw waaw loolu loolu loolu. pour mos a parcuriser del improvisé. man dafa dogal ni man naa toog yàlla yàlla xam na ma préparer damay dem directement affaire yi moom c'est naturel quoi. bu koy bu RTS. wax eh, yaa ci yoon bi da ngaa mën da ngaa mën. waaw. Eh, eh, mais El Hadj man maa dem de pare naa. waaw. mais du courage mon bébé. waaw ñoo ba nga siiw rek mu ne la dama la doon wax moom yàqkat der la bu ko ay chef bi ñoo ngi sa ginnaaw waaw mais xam naa loolu yoo xamante ni dañ maa bëgg muy galo muy ki nga xam ni mooy euh, sawaay maas di yow di nabu donc da ngeen bëgg quoi donc ça fait plaisir waaw ñoo ngi sa ginnaaw xam naa ni yéen sama ñoo ngi sa ginnaaw da ngeen maa bëgg bonne chance ah, <laughs> dañ lay pervertir léegi te xale nga bëgguma ku la pervertir xuusa rek jaar waaw doom lay